bi fi xew-xewu weeru mars amee bim jeexee sénégalais yu bëri wala ma wax sax sénégalais yépp nag ak li ñuy tuddee communauté internationale muy waa bitim réew yépp dañ doon laaj benn laaj bu am solo mooy ndax kii di président Macky dina jàngat jàngat yi mu war a def ci mbir mi waaye ndax dina ci jóge mu am lu mu soppi ciw doxalinam loolu laaj boobu dafa nekkoon ci làmmiñu ñépp ndax dafa am lu mu doxalee woon juróom ñeenti at yu jiitu ñépp xamee ko ci nappaate ci dóoraate ci tëjaate kaso ci saagawaate ndax nag damay wax ni dañuy wax ni naar bu ndaw lu mu dégg rek lu mu wax rek daf ko dégg fenn ñii mu àndal ñépp ñuy wër télévision ak rajo yi di saaga nit ñi di wax lu bon ci nit ñi dama bëgg ñu xam ni senegal yépp xam ni moom moo leen ko yebal taxaw ci gannaaw nag làqatu bu ko defee suñu yaay yi ndeysaan soo waxee ñu ne man de li tax mu neex ma mooy dafa yaru waaye ku fi génn dem di saaga ay nit di xas ay nit ci jege jegeñaaleem loolu yàgg na fi jamono bi muy nekk ci biir PDS nekkoon ministre ak premier ministre daal fi créé ay journaux yoo xam ne loolu rek moo ne woon seen jubluwaay mooy saa suñu xëyee rek nañu saaga ki nga xam ne mooy adversaire politique am kon ñépp ne woon ban ban jàngat lay jàngat ci li fi xew ndax dina fi jóge delloo xelam xam ni réew mi moomu ko léeg-léeg sax dañ naan dañ koo dénk rek dénkuñu ko réew mi dañ koo dénk lenn ci kilifteefu réew mi waaye réew mi kenn ku ne ci ñun daf ci am wàllam ci ndénkaane ndax kenn ku ne sa biir kër na ko war a yore dénkuñu ko Macky yow lañ ko dénk moo tax xadis dafa ne kenn ku nekk ci yenn sàmm nga te kenn ku nekk la nga lay sa responsabilité ci càmm gi mooy li nekk sa loxo yow kay chef de famille famille ba la kay chef de quartier quartier ba la kay chef de village village ba la kiy maire ville ba la ba nu mu demee ci kaw ñépp ne woon am nañu yaakaar ni fii lay jóge defaraat toogaayam rafetal la ca des mille vingt 2024 ñu organiser élection ci ni mu gën a rafetee mu dem yoonam ci ni mu gën a jekkee diggante sénégalais ak tontu laaj boobu nag sénégalais léegi am nañ ko mooy Macky Sall jàngatul loolu ci xew-xew yi te tey la waalo gën a ay wala tey la a gën a aay laay wax loolu la ñëpp gisandoo balaa may sori ci wax ji dama bëgg a delloo njukkal. dama bëgg a delloo njukkal waa Fuuta samay maam waa Fuuta dama leen bëgg a delloo njukkal parce que lu ama am solo la juróom-ñetti at a ngi nii bëri nañu doon ngur-nguri ci suuf naan waa Fuuta dañuy def nett ku bandum naan waa Fuuta vote ethnique la ñuy def wala dañuy topp aveuglement dañuy topp lu àndut ak sago kii nga xam ne mooy makisal man de bokkoon naa ci ñoo xam ne loolu dama ko teggi woon parce que jàpp naa ni kenn ku ne di yëngatu ci politique fa nga bokk mën nga fa am tuuti vote affectif loolu fépp la ci àdduna fépp la ci àdduna boo demoon Allemagne noonu la boo demoon France noonu la boo demoon feneen ak feneen noonu la vote affectif boobu nag mën na bëri trop mën na yemamaay mën na néew waaye homme politique boo xam ne fa nga sosoo mënoo fa am dara bu yóbboo nga ba politique kon man ma jàppoon ni peut-être dañoo xawoon a exagérer loolu tey nag waa Fuuta googu lenn ci ñoom te ma gëm ñi ni ëpp ci ñoom la ndax bu dematu woon noonu duñu soxla yëpp ay kaari kaari kaar fii ndakaaru di leen jox ku nekk vingt mille francs pour ñu dem di feesal ay accueil kon ma gëm ni li ëpp ci samay mbokk futanke tey ñoom ñoo taxaw wane ni Fuuta lañ ko xamee woon xamee ko woon waalo xamee ko woon siin xaween ko woon balaw bawol xaween ko woon euh, euh, saalum xamee ko woon Casamance la xamee woon Sénégal muy jom fulla fayda fit bëgg lu baax bañ tappale loola ma nga fuuta tey te tey la fa gën a nekk waa fuuta googu taxaw wane ni ñoom ñooy les dignes héritiers ñoom ñooy ay sëtu dëgg-dëgg jëgg Thierno Souleymane Baal nga xam ne ñépp xam nañ ko ci liggéey bu rafet bi mu defoon ci li andi la révolution au Fouta te it mooy koo xam ne ay njàngaleem bu ko Macky Sall woon lii ko dal du ko dal li mu jàngale woon ci ni ñu war a yoree nguur maa ngi invité sénégalais bi ñu liiraat ko li mu jàngale woon ci ni ñu war yore nguur bu ko Macky Sall defoon lii du ko dal tey ba mu doon l'homme politique le président le plus impopulaire de tous les temps le plus rejeté par les Sénégalais jël alalu mbooloo séddoo kook yaag say mbokk jaay réew mi jaay doole ku wax nga dóor forcé ne maa fiy toog par force suñ ma tànneeg suñ ma tànnul loolu yëpp Thierno Souleymane Baal bind na ko bu ko toppoon lii du ko fekk kon waa Fouta Tamp yooyu wane nañ ni ñoom ñooy les dignes héritiers de Thierno Souleymane Baal wane nañ ni ñoom ñooy dëgg dëgg dëgg setu El Hadj Omar Foutiou Tall wan nañ dëgg-dëgg ni ñoom ñoom ñooy sëtu almaami Abdel Kader kan wane nañ ko kon ñun ñépp di sénégalais waruñu seetaan ñooña ñépp gis nañ leen dal dañoo war a am suñu solidarité entière dañu war a am suñu euh, euh, suñu suñu suñu jàppale ci bépp fànn bu ñu leen di jàppale tey bokk na ci li yàq réew mi mooy ñi jàpp ni li fi nekk du dëgg yépp war a xeex léeg-léeg dañuy tombe ci benn piège mooy kenn ku ne ragal na ñu ne suñ ma gisee ak Masamba dañ naan moom moo ne sama gannaaw moom a ngemb te moo ne ñooñu ñuy sóoraale ñoom ñoom amuñu ci sa boobu de ña nga ànd ak ñi ñu war a àndal ñëpp ci yàq ak séddoo réew mi ak jaay réew mi man de xam ma waa Fuuta Tampi musuma dajeek ñoom musuma waxtaan ak ñoom waaye naw naa leen félicité naa leen te pare naa pour dajeek ñoom ba cëg mbir kàmm nag du lu may nëbb ngir intérêt réew mi di wax nag ni dañu lancé ñoom dañu confirmer bokk li nga xam ne lancé woon na déjà ci mois de mars bi mooy seet révolution populaire citoyenne républicain boo xam ne dafa ne dootuñu bàyyi Macky Sall mu nekkee ci ni mu nekkee ci biir réew mi moo tax damay laaj dama naan concept bi ñu war a lancer sax tey mooy Sénégal tampi du Fuuta tampi li xew Fuuta moo xew Sénégal oriental moo xew Casamance moo xew euh, euh, Sine moo xew Saalum moo xew Bawol moo xew Ndakaaru Njaay gii na ñépp jëlandoo Sénégal tampi buñ ko essayé soppi sax naa dañuy def beneen langue tampi bi la ñuy baax moo cay ne boo demee Casamance muy Casamance tampi boo demee Sénégal oriental muy Sénégal oriental tampi soo ñëwee Ndakaaru muy Ndakaaru tampi loolu mooy concept bu ama am solo boo xam ne dañ ko war a lancer ndax fépp a tampi ci réew mi université yi tampi Saloum tampi Bawol tampi Sénégal oriental tampi diaspora sax tampi lan moo baax ci réew mi lan lañ ma mën a ne lii ma nga ma ngay dox ci réew mi ba pare waa ji toog fi ne kenn du ko wax ku wax mu xoggale ku funki di jaay maa maa mën a mer ku bëgg a mën a mer dëgg-dëgg da ngay xëy rek éclater loolu lañuy ñuy xamee ni mën nga mer moo tax ñu leen di apporter suñu solidarité boo xam ne amul fu mu yem di ko apporter it président Bougane ba Dany mi nga xam ne attaqué nañ cortège am démb loolu dama koy wax waa opposition bi yëpp di ko wax sénégalais yëpp gis nga boroom yar mu yor ab yatam